ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen rek di leen di am mbégte ak contentement di ànd ak su ne seen programme Lutte TV ñu ngeen ko gisee nag démb dañu bu su ma juumul bi muy mujjee arène nationale victoire la fa jóge tey Lutte TV seet si ko rek fekk ko nag ci mbaaru xaram yi moom moom li muy naan ne l'homme des douze waaye moom mbër bu am métier la parce que mu ngi ci élevage bi vraiment xar yi ngeen fi gis tey macha allah Daouda maa ngi lay ziar ñu lay doo fay bàyyi di la baalu àq te di baal àq te ñaanal jàmm te di baalu àq ñëpp nag te di baal àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm woy na la demee gars yi siyaar nga bu baax a baax maa ngi lay bëgg naka naka weeru koor bi woy sant bu baax ñu ngi koy dund ñu ngi koy dund bu a baax waaw si koor yaa ngi woor waaw maa ngi woor waaw nii waaw maa ngi woor maa ngi woor gaaw sa bët sa bët yi niroo ah non maa ngi woor gisoonu <laughs> daal gisoonu ma sonne nii xanaa ñaar rafet nga woor naa instant bii man nag suñu njëkkoon woor laa bokk. suñu njëkkoon woor quoi instant bii moom ay six jours moom li des bëri waaw noonu la dundee koor gi en tant mbër sportif. waaw koor gi moom nuñ koy dundee xëy na dëgg la métti na méttiwul. Hmm. ba man moom damaa xaw a ragal moo tax benn séance sax laa si entraîné waaw du ma ndogoo pare damay toog ba lu ma ndogoo wàcc hmm. ma dem lijjanti ji ko waaw du ma ko lijjanti bay une heure deux heures hmm. ma ñëw sangu reer julli

si lañ war a bëre waaw du ma war a bëre waaw du ma dem si booy zoro bu ginnaaw raay hmm. waaw xam nga loo sot loo sot xam naa ko kay donc bu de non garaawul dafa ah. jiwul dañ koy si def garaawul wala da nga koy wala da koy gën a tàngal a tàngal ba pare soo koy seetal tarkindaay seetale ko tarkindaay ah. noonu la demee nag waaw ragalul ah, loolu yomb de non du yomb mais dara sëñ Fall dañ koy gérer hmm. Hmm. dër bi la nar a nekk de waaw dër bi la mais du yomb jaamagan koy bëre ñoom dër bi lay doon dër bi lay doon waaw ragaluñ loolu loo ko nar

maanaam dafa xew dafa xew léegi daa xew promoteur yi ñoo doole rek mhm. waaw tëgguñu benn tëgguñu ñaar ñoo ñëw ensonné ñu nit bëri ñu ensonné rek ensonné daal noonu la demee mais dama bëri tam maanaam Daouda Sandwich tamit maanaam buy bëre day mobiliser parce que yaakaar ne promoteur yi loolu lañuy loolu ci mbër daal waaw noonu la demee man moom du may bëree lamsaar jàmm gën Fass Mbaw sama kër yaay ñëppay maa bu dem mhm. waaw noonu la demee rek. waaw ñëppay màbb ñëw. ñëppay ñëw daal waaw mu neex du ma fekkee kon ragaluñ loolu quoi. Mm-hmm. noonu la demee. bu ñu jógee noonu tey boo fa jógee dugg si Boy Zoro waaye euh, nga nga dëkk nga dëkk nga dëkk foo xamante ni tey maanaam mun nañu dëkk waaye lamb la. Mm-hmm. parce que fii tey bëri ay champion yu fi dëkk tey naka ngeen dundee seen biir parce que ku ne xam ne mbër dafa fiir. waaw mais mbër daa fiir nag mais man ñun moom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que ay morom ay morom lañ ñun ñëpp ay morom lañ ay xale lañ ñooy fawandoo ba duggandoo si làmb. defandoo lépp daal waaw. yaakaar naa daal amul benn wóolute boo xamante ne bu ñu sonal la. Mhm. parce que ñun ñëpp benn lañ. Mhm. ñun ñëpp parce que tey li nga yéene sa morom loolu nga yéene sa bopp. Mhm. waaw ni nga amee combat nag noonu la yeneen gars amee combat ma gargaare combat boobu moo gargaare waaw dañ koy ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam ne ko mu liggéey doole te xeex bu baax tamit rek. dëgg naa ma nga nga sax laay wax. moom non Maama Lamine ma nga Gambie yàgg na Gambie fi ñëwee contrat am la fi ñëw signature delluwaat. delluwaat waaw Maama Lamine moom yàgg na Gambie moom. ah am na combat de. waaw am na combat dañ koy ñaan yàlla mooy ko ndam rek. Hmm. xam nga ki mu war a bëreel. waaw Garga 2. Ah. waaw bëri na ak suñu grand frère. Hmm. bëri na ak suñu grand frère Sentel. Hmm. waaw ngeen ñëw. waaw ñu ñëw suñu borom ko. Gaal Lamsaar jël Maama Lamine dañuy ñaan Maama Lamine freiné ko rek. Hmm. loolu la ñaan suñu. mais est-ce koy conseillé parce que maama bu muy maama boo waxee naan ne Garga de mbër du mi ngi nekk mbër moo xamante daa xaw a daa xaw a naqaree bëreel parce que day dóor di song. day dóor di song waaw day hmm. kon tey dañ koy ñaanal suñu borom may ko ndam parce que du ngaaka boobu. waaw du ngaaka hmm. Siteu Papa Sow Siteu Papa Sow waaw Siteu ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mooy Siteu ndam rek hmm. waaw di ko ñaanal tamit wax ko mu liggéey doole hmm. mu liggéey doole waaw gaynde gaynde la faraanoo de. dañ ko dàq mu bëri écuréem mhm. ñëw jóge ci defet yaa ma gën a am. oui la dëgg la loolu la gaynde la parce que ay ndaanaan rek la fi bëreel. Hmm. gaynde la kon la ñaan yàlla suñu borom dooleel ko rek. Hmm. kattanal ko. ko waaw loolu koy ñaanal rek. Hmm. mais c'est pour tamit mën na bëri trop trop trop foo mën a bëri romb na fa parce que Siteu li muy entraînement li bëree contact. Hmm. war na Serigne Bamba bëree goo sax si làmb ji. barke maam Serapal bëree goo sax si làmb ji si da a bëreem ko. Hmm. war na alxuraan moo tax làmb ji damaa ñaan a xeex bañ a def a xam ne mën na bëri si làmb ko mën na fecc a bëri. bi na fe mën na fecc de en ma nag fecc moom. fecc moom mën na am yaas daal na am daal. mën na bëri tamit trop bëri la gën a mën ko fecc sax. waaw. Papa Sow ko ciy conseillé. waaw Papa Sow mu koy conseillé mu liggéey rek wut doole ju bari. jàng xeex bu baax du ñuy bëri moom parce que grand am la bu ko émulé mën na dóor trop mën na xeex mais bu ko émulé na ko jàpp rek daan ñu ñibbi. Ah, ana mafia bi mën a. mafia mën a rëbbi ñu ngi fi. ah ñu ngi fi gis nga de dañoo doy waar de. dañ doy waar de ah dañoo doy waar trop. gaa yi joxe ndogu yeeg yooyu yëpp macha allah. vraiment waaw gis nga dem waaw mm-hmm. gaa yëpp jàpp si. Mm, ak seen jigéen jooju ak seen waaw waaw si bu baax a borom meew Laliya ah, xam waaw borom meew Laliya waaw dañ koy ñaanal ànd bi yàgg rek mu kii gën a dem gën a saawaan baawaan. ana ana ana ana fàqmaan bi yaa ngi koy dégg fëgg la. sànq rek sànq rek fàq fàqmaan la. waay sànq rek maa ngi koy dégg. daa fàq de dina ñëwaat est-ce que daw day ñëwaat. day teew foogoo ma ko de. day ah. teew foogoo ragalul loolu daa xees de tuñuy xees. non loolu ah bu fëgg mooy loolu undu la de. undu la de kooku day teew de barke Serigne Mbamba am na am na affinité boo am seen si yéen ñaar quoi diggante frère ak frère maanaam am na jubóo boo am seen diggante daal. waaw suma mag la suma lépp la. woon na Serigne Bamba suma mag la suma lépp la. kooku ginnaaw suñu papa wàcc liggéey ba tey. parki que borom Touba taxaw nañu. man nag maa moom hmm, nekkuñu sax ay magra ay morom lañ. gaañ ngeen daal ñooy bokk yëre yi sol. te dañuy taakale. ñooy ànd fu ñuy dem. ñooy toog waxtaan ñooy def lépp daal. Hmm. ak Serigne Bamba amul xarit maa xaritam. du weesoo làmb ji nii. Hmm. dem entraînement si gars yi nii ñëw. maa xaritam amul gaañ daal barki borom daaru. looy yóbbante fo kii nu ñu ko waxee tey sax loo sóot. waaw loolu sonn doom day bu waaj rek na waaj bu baax a baax a baax rek. waaw hmm. xam ni carrément am na combat am na combat daal am na combat. parce que doomu lamsaar bi kuy bëre ak moom ku ne na nga waaj. bu baax rek daal bu baax daal. waaw noonu la demee. kon looy tàggatoo si Lutte waaw di sant ñëpp. Hmm. di sant ñëpp. Hmm. waaw di gërëm mën a rëy bu baax a baax. waaw di sant suma nijaay aaya aaya ba maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. waxuma man kese. mais ñun ñëpp seetaanuñu. ñun ñëpp muy man di waa koñ bi di xale yi di mag ñi di meer ñi di yëpp bàyyiwul kenn. ayaba ayaba bàyyiwul kenn. ni ma ko gërëmee gërëmeel ma ko noonu. sant dañ ko bu baax ba ayaba ñu ngi koy gërëm moo ñu dooleel. luñ mën tey. moom moo ñu ko mënale. fuñ toll tey. moom moo ñu fa toll le. mënoon na toog États-Unis liggéey xaalisam mais defu ko. dana damay ñibbi senegal toog samay biiri jarbaat leen jàppale ñuy gis man coono gi ma daan daj ndax ñoom dañ màggee seen i doom roy ñoom kon loolu ku ko def ku ne yaakaar naa ne ku la góor daal hmm. te yow gis nga li fi am kon yàlla na jàmmam yàlla na jàmmam yàgg waaw nañ ko ñaanal jàmm ak salaam yokk guddal fanam hmm. sama yumpaañ tamit maa ngi koy sant Awa Saw maa ngi koy sant bu baax a baax a baax hmm. sama yumpaañ maa ngi koy sant bu baax maire Oumou tonton Malick ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn waaw siyaar nañ ñëpp bëgg ñëpp. Isma Fall bëgg di la rendez bi kañ lay nekk nag avant. xam naa avant lamb ji lay avant lamb ji soit open wala salle rek yaa gën a xam. ñëw xool état bi ba xam waaw. noonu la ah? demee liggéey ko rek open press tamit ñu ñëw yëngal lam saar rek kon maa lay maa waaw noonu la demee yow amal jaamu. jaajëf di jox gars yi pour waaw di jox gars yi pour rek. Mm. ba beneen yoon allah.